sëñ Abdou Mbacke xalifa Baye Cheikh Khady ñooy nangu dogalu borom bi di leen tàgge sëriñ maam nu Mbacke moom Baye Cheikh Khady ñu ne sëriñ maam Thierno Mbacke moom Baye Cheikh Khady noppalu na big ci daarul ñu fas ko yéene jëbool borom bi tey jii ci àjjuma ji ginnaaw tàkkusaan kon maam Thierno Mbacke moom Baye Cheikh Khady moo bu liggéey ñu war ko jébbal borom bi tey jii buñ jullee tàkkusaan ba noppi ci àjjuma ji di ko ñaanal suuf daaru muxti